laaj laajte ndax euh, njiitu réew Macky Sall def ko jox euh, enveloppe gu toll ci juróom-ñaari milliards ci sari cam det euh, ngan googee nag la mu jur ci jamono ji yene cabinet kenn sookewu ko ku dul Philippe Bon nga xamante ne fës na lool ca na muy doxalee ci réewu Afrique yi moo sabab googu lépp ngan audience dox ci diggante Marine Le Pen ak njiitu réew mi Macky Sall Birahim Seck bu Forum Civil ma ngay sàkku yi tamit ay leeral jëm ci ngan googule la ko wundu ak la ko sooke milliards yañ ca tudd bëgg na cee leer seetlu moom Birahim Seck bu Forum Civil yéen kaay baa ngi ñu dégtali tamit lu aju ci euh, CAN U20 euh, Sénégal euh, Gambie ñoo cay finalu niki samedi gi foofe ca Égypte leneen lu fës ci wall Walf Quotidien di bëccëgu ñu jagleel jigéen ñi 8 mars ñu fas yéene waxtaanee ak ak yelleefu jigéen ñi yéen kaay bi di l'Observateur fa la tënk kàddoom rawatina fësal spécial 8 mars yéen kaay bi mu ngi ñu jigéen ñi. ak euh, jafe-jafe ya leen tënk yéen kaay bi ne moo xam ci ñàkkum courant ñàkkum jumtukaay ñàkkum financement ñàkk leen euh, taxawu ak i tamit wàllu paj mi paj mu sooxe lool. Euh, ba ci mariage forcé yéen ak cabinet jafe-jafe yaa ngoog bari lool te tegu ci ndoddu jigéen ñi waxtu wa jot nañu waxtaanee ko ngir saafara mu ci am mu ngi ci yéen ak cabinet di l'observateur ci xëtam bu njëkk xuus na sax dem wutali Euh, jigéen ña yeewoo ca bopp coor jafe-jafe yañ fay dund euh, mu ngi ci euh, yenn kaab yi ndax bidon yu ndox yoo xamante ne ñu ngi ko fay root ndax ñàkkum ndox am koo xamante ne root na fa lu toll lu ëpp téeméeri bidon ndox fa la jaare sax mujje daanaka am gàllankoor ci itamit wér-gu-yaramam mu ngi ci yenn kaab yi nga xamante ne mooy l'observateur yenn kaab di yor yor bi xëy duñu degtal lu waaju ci 8 mars bëccëgu ñu jagleel Eh, jigéenu àddina gi eh, bokk na ci ñi ay kangam lañu eh, béy nañu seen waar ci wàllu injustice maanaam ni yoon doxee te te déwul njaaxaanaay yi la jigéen jóg nañ cee ñaxtu mu ngi ci yenn cas yi nga xamante ne mooy yor-yor bi. mu ngi ñuy xam léegi tamit benn jigéen goo xamante ne Sénégal gii la fekk baax waaye nag moom moo njëkk a nekk maanaam jigéen u Sénégal gu doon avocate ca Italie Aminata Gueye lay wuyoo avocate la ca itali Eh, te fekk baax fii ci eh, Sénégal yéen kaabi di eh, Le Soleil mu ngi ñuy degtal njiit réew mi Macky Sall jot na sargal jaajëfal na jigéen ñi fas yéene leen taxaw gunge leen itamit ci wàllu koom ngir gën a itamit jëmmal seen nekkin fii ci réew mi njiit réew Macky Sall ay kàddoom ci biir yéen kaabi di Le Soleil yenn kaabi di Le Mandat mu ngi ñuy dégtal Pape Ndiaye di taskatu xibaar. ma nga sous mandat de dépôt yéen cabinet démb la ko juge bi déglu euh, Pape Ndiaye fanaan na guddeem bu njëkk euh, ca kaso ba doon itamit taskatu xibaar bu groupe Walfadjri euh, lañ koy toppee la ca gën a fës bokk na ci joxe xibaar yu wérut ak itamit xotti worma magistrat waaye nag yeneen i poñ yoo xamante ne gàll nañ ko ci loosam moom taskatu xibaar bi. Eh, di eh, Pape Ndiaye eh, leneen lu fës ci yéen kabi di le mandat mu ngi ñuy dégtal Abdoulaye Sow moom mi tontu Hadjibou Soumaré jot na ko artu ci kàddu yi mu yëkkati yàggut jëmale ko ci nganup Marine Le Pen ak milliard yam ca tudd. yéen a bi di euh, las ne tey jii lañ leen di tudd jigéen ñi euh, saay su ne ñu bàkk leen kañ leen waaye nag jigéen ñi tey dañ leen beral loxo euh, jot leen a sargal fépp ci àddina gi jigéen ñi ak kenn ku nekk waar ba ngay béy yéen a bi di ñu xam lekk ñaari soxna yile nga xamante ne kenn ku nekk fës nga ci géopolitique u Sénégal ku mel ni soxna Penda Mbow ak professeur satu Sow Sidibé yéen a bi ne ay kàngam lañu ay jigéen lañu yoo xamante ne. ñu ngi béy seen waar ci réewum Sénégal yéen a kabi di l'évidence mu ngi ñuy dégtal euh, feetu 8 mars na muy demee ak mu jot daanaka du soppeeku xumbay mbumbaay ak rumbaay ak xumbeen euh, ci euh, bile feetu 8 mars folklore bi day fës lool ba tax na ba ba léegi amul lenn lu ci soppeeku ci doxalin gi yéen a moo ñu ko yëggee ci xëtam bu njëkk moom l'évidence yéen a bi di euh, Tribune xëy du ñu delloo xëy di delloo njukkal jigéenu àddina gi rawatina jigéenu Sénégal euh, xamle ne ci réew mu Sénégal gi ñu ne am na fi ay femme modèle jigéenu royukaay yu ñu fekk ci miim réew di Sénégal yéen a bi ne ku demee ni soxna maam Diarra Bousso Aline Sitoé Diatta maam Astou Diankha Mariama ba ci euh, Fawad Wele. ak euh, ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne ay jigéen ñu jàmbaare lañu euh, yàgg di béy seen waar ci miim réew doon royukaay moom la yéen a bi nga xamante ne. Euh, moom la turbine xëyee xëyee nay tamit Bougane Gueye Dany ma ngay delloo njukkal jigéenu senegal dina xamal ne muñ leen léegi seen jafe-jafe teggeeku bu ñu sukkandikoo ci njiital gëm sa bopp. yenn a bi di le quotidien bëccëg gi ni mel di 8 mars euh, ci la ñuy waxtaanee ak ak yelleefu jigéen ñi euh, bokk na ci euh, jafe-jafe ga ñuy dund nag ci wàllu koom jafe na ci ñoom ñoo xamante ne dañu am taxawaay gu mat sëkk ci wàllu koom ngir mun a taxawu seen bopp yéen a bi ne loolee sooxee na lool ci wàllu jigéen ñi ki tamit seen nekkin mu ngi ci yenn a bi di le quotidien. yéenekaay bi di l'info xëy duñu dégtal euh, Boubacar kamara yekk na lu mel ni xeme njiitu réew Sall ak nguuram xam le ne euh, ci mim nguur di euh, nguurub Macky Sall ci lañuy ñuy salfañee ak ak yelleefu doomi aadama nasaxal yi tamit démocratie Boubacar Camara moo ni waxee sàkku na sax caabi pale ba bu ci njiitu réew Macky Sall jotaat 2024 na caabi yooyee tuxu feneen ci keneen Euh, doon càkkuteefu Boubacar euh, Camara yéen a bi euh, point info mu ngi ñuy tegtal mémorial Sankara foofee ca Burkina Faso mi daloo FESPACO bi jot nañ ca delloo njukkal kii di Alioune Sow jëru ngi ñu denk wàllu cosaan ak aada tey jii ñu jëlloo njukkal jigéenu àddina gi yéen ak ne ci wàllu koom Tresoy Diouf mi jiite FONGIP na mu taxawoo ak kuréel googe ban jeexital la jur ci jigéenu Sénégal ndax gis nañ ci seen boppam déet. mu ngi ci le point info yéen a bi di direct euh, news euh, direct la def wutali Tunisie euh, dëkkub ba mi ñu ne ci jamono ji daanaka doon na dëkk gu ñuy waxtaanee ci àddina gi ndax na njiit réewum Tunisie taxawee kàddu yamu mu yëkkati yàggut gàkkal der bu ñuul bëggatul gis der bu ñuul ca Tunisie loole nag tax ay sénégalais. rawatina ay doomu Afrique di dund jafe-jafe gu tar foofe ca dëkkub ba mu ngi ci yenn a bi di direct news. yéen kaabi di critique ci xëtam bu njëkk mu ngi ñuy dégtal eh, jigéen ñi de ñu ngi leen di delloo njukkal di leen sargal ci bëccëg 8 mars bile eh, hommage à nos eh, delloo njukkal suñu yaay yi delloo njukkal yi tamit suñu jigéen ñi ak suñu doom yi yéen kaabi ne delloo njukkal lingeer yu Sénégal te jii ci 8 mars daañu waxtaanee ak ak yelleefu jigéen ñi mu ngi ci yéen kaabi di critique yéen kaay geneen euh, def euh, édition spéciale mu ñeel euh, carré culture delloo njukkal jigéen ñi spéciale 8 mars moom la yéen bi xëyee tey di ñu xamleek benn jigéen gu jàmbaare lool yéen bi ne mooy jigéen gu njëkk a doon li nga xamante ne mooy agrégé en neurologie professionnelle di professeur Mariama fay en neurologie agrégation la ci am. Euh, di professeur Mariama fay moom la yéen a kaay bi xëy fësal ci xëtam bu njëkk ak yeneen jigéen ñoo xamante ne euh, ñu ngi euh, wéy di daan seen doole ci réew mi ak fépp ci àddina gi jigéenu Sénégal ràññeeku lool bu ñu sukkandikoo ci yéen a bi génn tey ngir sargal jigéenu àddina gi di carré culture. mu ngi ci xët bi yéen a bi di Sud Quotidien mu ngi ñu dégtal jigéen ñi ak 8 mars naka lañ ci taxawee waxtaan ga ca jib tey jëm ci gën leen a taxawu waxtaanee ak ak yelleefu jigéen ñi eh, kii di Fatou Sow am na waxtaan gu yaatu gu mu seq ak yéen bi di eh, Sud eh, Quotidien yéen a bi di Libération mu ñu ñuy dégtal Pape Ndiaye amagul liberté delluwaatul ca këram yéen a bi ne yóbbu nañ ko su mandat de dépôt moom taskatu xibaar bu groupe Walfadjri gannaaw kàddu yamu mu yëkkati jëmale ko ci dossier Adji Sarr ak Ousmane Sonko mi mu ne dossier gi ni mel mu jéena tëri ji euh, fa nga xam mooy chambre criminelle te daa am lu ci laxasu loole nag yoon moom la doon laqar ci ba jot koo déglu. Euh, daan na ko nag ci jamono ji yóbbu nañ ko euh, mandat de dépôt euh, bokk na ci ay poñ yu bëri juróom-benn poñ yoo xamante ne ay daan la yu tegu ci ndoddam ca lañ koy toppe la ca gën a fës bokk na ci joxe xibaar gu wérut ak xotti warma magistrat yi mu ngi ci yenn cas bi nga xamante ne mooy libération ci xëtam bu njëkk. yéen a kaabi di le peuple quotidien xëy wutali Touba Mbacke mu ngi ñuy degtal màggalum Daaru Muxti euh, maam Thierno Birahim Mbacke moom lañu nar a sargal ci euh, li nga xamante ne euh, mooy bëccëgu tey jii foofe nga xamante ne mooy ca Daaru Muxti yéen a kaabi xëy di ko leeralal yenn a kaabi di suñu lamb mu ngi ñuy degtal rëg-rëg Sa Thiès combat ak coow gi ci am yéen a kaabi ne CNG fas yéene auditionné maanaam déglu Sa Thiès ak rëg-rëg ci euh, àllarba tey jii euh, ay daan yu tar nag doon lu mun a tegu ci seen dodd li jiitu mooy euh, Sa Thiès teq nañ ko lu ëpp benn million kii di rëg-rëg ëpp teq nañ ko lu ëpp maanaam téeméeri junni mu ngi ci yéen a bi di suñu làmb ngi ak euh, fu ñu jeexale xetu yéen kaay ci baatu askan wi mbokki lu nuyoo tàggoo euh, tàggatoo jot na ci xibaar jaajëfal Abdoul Aziz euh, Fall mi ne woon ci machine bi mbokk yi di leen jaajëfal ci kóllute beek ànd beek wal fajri ñu fas yéene ànd ak jigéenu àddina gi rawatina jigéenu Afrique rawatina jigéenu Sénégal delloo leen njukkal ci bëccëgu 8 mars bes bu jot seen bésa ñoom jigéen ñi. Euh, sargal leen delloo leen jukkal ñaanal leen ndax euh, euh, seen taxawaay ci àddina gi seen taxawaay ci mim réew di Sénégal ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax a baax daañ leen ci gunge ci bëccëgu tey jii fii ci groupe fajiri nag dina ci am ndaje ndaje mu yaatu ak jigéenu groupe fajiri dañu béy seen waar ci 8 mars bi dañ leen taxawu ngir bëccëg gi ni mel liñ ci séentu ñu mun ko caa am mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal ci kolute gi ñu yendoog jàmm ak programme leeru jamono yal na jàmm yàgg sax fi dàkk ci réew mi.